bàyyi doomu jàmbur ji Ousmane Sonko alaaj Medoune lii dafa ñaaw daf rusulu sëñ bi lii li ci nekk kenn mënu ko Ousmane Sonko nañ ko bàyyi laa la wax nañ ko bàyyi balaa ñoo rey doomu jàmbur ji ndax li ñuy xëy di ko gis par guddi kenn xamul lan la mënuñ ko wax ci làmmiñ nañ mënuñ ko wax ci làmmiñ ndax buñ ko wax ci làmmiñ ñëpp jaaxle ñëpp tiit te fu mu doon lañ liñ soxla mooy lu ñu lekk lu ñu naan moom la ni ñi tal moom la nit ñi tal ni ñi taluñ ay guerre ak ak i yuuxu ak i déy nañu bàyyi doomu jàmbur ji kilifa yi buñ ci waxul nañ ci wax na population bi ñëpp wax. impératif tey soose bi dafa teel a mer jëmm ji mooy mbokkum Ousmane Sonko di Serigne Soye bu Maane dëkk biir Casamance. gis nga tey ni mu solo tey yaakaar naa colinu Burkina bee la solo mu ne ma Sonko ñiy wax naan dina bokk kaay ma am lu ma leen leeral ndax Sonko am na ñu naan feebar na mu ne ma kaay ma am lu ma la wax loo xamante ni baatin la. ba ci Modou Lo Ama Baldé bëgg naa tey soose bi wax ñu kan mooy daan mu ne ma jigéen gu am sacré yàlla am na secret bu ci nekk mbokk yi kon jigéen ñi am sacré yàlla déglu leen lii sëriñ bi leeral leen ko dañu waxtaanee li xew ci dëkk bi. dama koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi euh, sëñ Soye maa ne ñoo ngi lay euh, fay naa la lay dégg di la ndokkeel di ndokkeel Médoune mi gannaaw julli ci yonent bi sant yàlla njëkk. ndokkeel alamu islami yëpp raw jiital ci xalifatul aam li tariqatil muridiyya Cheikh Mamadou Muntaxa sama borom yàggal ko fi lool taman la ko wér ak mboolem seex si mboolem kilifa turuxu Sénégal gépp yàlla na yàlla saxal jàmm ci réew mi yàlla indi jàmm ci Palestine fépp fu ñaanal yàlla yàlla indi jàmm ci Palestine ndax la ñuy dund guddi yi metti na lool te képp kuy julli rek war na la metti tey Sénégal bu ñu ne quatre vingt pour cent wala nangam pour cent moo fi nekk ci jullit war nañ am une semaine boo xam ne dañ koy manifester wane seen naqar wane ne seen mbokkul jullit lañ def lii ndax al muslim aqul muslim jullit jullit rek kay mbokkam Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa wax ni képp koo xam ne euh, bokk leen diine mu ne lu la defal ci taranga wan ko ne ko bëgguma la ngir ñàkk ñàkk bokk diine islam mu ne ki nga bokkal diine nag lu mu la def ci ñaawteef lu mu bon saxal ci bëgg ngir yont bi mi ngeen bokk kon jullit bu am naqar mboolem jullit bu mu mën a doon war ngaa mën a taxaw Sénégal rek laa gis buñ attaqué lislaam duñ jug duñ manifesté wu duñ def dara waaye kuñ fi tudd sa baay wala sa maam nga jug amee rajo bi dégg nga mel ni lu kenn xamut dégg nga wej wej ju jeex yoo xam ne tegul fenn te seen maam yooyu ñu daan tudd dégg nga yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñu daan liggéey lañ am lépp ñu ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga bëgguñu woon dara dara lu may yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw sëñ Tuubaa dégg nga dammi wa ahli wa awlaadi fidaahun lahu loolu dafa leer nañ bañ na ko ba deret jëmmam ji da koo jël jox ko hmm. ñooñam gépp mu jël ko tuur ko ko dégg nga njabootam yi am mu jël lépp buub lépp jox dégg nga bàñis mel ne fa asartu bal Mustafa doona xayrihi walaw ummu kalsumin walaw kaana maryama fa xayra rasulillahi laysa li taalama sax dégg nga nee jeexal naa bëgg jeexal naa sama bëggal tàkk ci yont bi ba deseetuma dara mm-hmm. ne du caagi ni sama soxna si di ummu kalsum wala maryama bi teg ci ne maam déet lu yonte bi sax man ma koy xamlu waa léegi ana tey jii lu waral sunu ñii ñu fi bàyyi roy ci loolu wala jullit yii ñi ci dëkk bi roy ci loolu foofu laa fa yem la ma tegaat mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne daanaka léegi mu jege at ñu jàpp ko dugal ci kaso bi mm-hmm. dégg nga bu tayee ci kaso bi bu subaa hôpital bu tayee ci kaso bi bu subaa hôpital bu subaa tayee ñu ne mu ngi comment bu tayee ñu ne mu ngi grève de la faim nit ñëpp toog ne xew di xaar lan la ñuy xaar élection yi di ñëw ñëpp àdduna sépp la monde ce rajo yi télé international yi ku nekk di wax wane ne carrément ne kii lii ñu ko téye nii du dëgg du yoon teguñ ko fan suñ kilifa yi kilifa aada yi kilifa diine yi dégguñ kenn ku ci wax bu ñu waxee ñoo naan diwa ngi ciy wax keneen ngi ciy wax keneen wax ci suuf mooy lan nañu wax ci kaw ni ñi xam le xew lan la yaa ngi dégg sonal nañ nit ñi léegi kii tay bu fi dee ñëpp yuuxu naan rey nañ ko loolu gàcce bu rëy di Sénégal war nañ bàyyi doomi jàmbur ji mën a faju ji kii wérul waaye nag ah jàllal ci leneen. Euh, sëñ bu euh, tey li ñu war a waxtaanee ci xam-xam bëri na yenn yi ci wàllum noob yenn yi ci wàllum takk yenn yi ci wàllum mocc waaye yenn yi ci wàllum li nga xamante moom mooy mankaane ba ci mankaane jigéen fan lañ koy waxtaanee fii wala néegu xaloo ba. wala fi ngay réservoir yi. alaaji nañ dem ci nekk man sama yaram dafa dafa tàng fu mu toll ndax euh, injustice man dama ko bëggut te boo gisee man boo seetloo bu ngeen ma gisee balaa ngeen ma gisaat yàlla xam ndax man dama amut jot damaa nekk ci liggéey man la ma bàyyi bàyyee woon ca laa ne ne ci moo tax mun ma am jot bis bu set sama client dañ may woo gëj nañ gis nga def vidéo gëj nañ laa gis ma leen awma jot. aw ma jot na may liggéey aw ma jot te sama liggéey bi dafa aw yoon dafa am yoon boo xam ne boo jawee benn jot bi doo ko am danga koy bëgg sax waaye doo ko am dégg nga te yàlla ci jëm boppam mooy aji mayaakoon bi mooy maye yàlla ci jëm boppam dimbali nañu may ñu loo xam ne ci wàllu gis du ma kenn amu ko de waaye néewaa na ndax mosuñoo gis mbir wax te amul lu ca feeñ wala lu ca am. kon la wax ci seet day am. junaat yi da nga gis ku koy liggéey fii ci seet. junaa ci loolu ci soose soose yu mag yi rek nga koy dégg gone yi sax doo gis kenn ko kii dama ko dama ko pekk xam ko seetu junaa gis nga alaaji li may wax toujours na nit ñi dem jàngi gis nga boo jàngee ba xam da ngay noppalu li kilifa gu baax Cheikh Sohayb radiyallahu anhu waxoon ku xamul na dem ku xam xamal ko lu ko mooy moo wàcc boppam ku xamul na dem ci ku lu ko mooy moo wàcc boppam tey ji yow alaaji ñëw nga bëgg a tukki mënoo dem nga ne ma seetal ma ma seetal la masalan ramli seetal la ba noppi bu ma seetal ba noppi nga jékki-jékki bi ñu paree seet nga ne ma sëñ bi de man de damaa bëggoon am yoonu tukki wala sama jabar ji dama ca bëggoon dugg wala sama kër gay kat dafa mel dañ ko yàq ndax kër ga saa bu ma fa duggee am yu ma fa arrivé wala nangam wala sama suuf si nangam ci biir seet bi ci junaat yi lay génne wax la jolul dañ loo xam ne sarax da ciy génn bu wér te leer bu nit feebaroon ma xam ndax day jug wala day dee bu ma la nee bu ci bu ci docteur dem buñ ko def dara nañ ko seetaan day dee day dee bu ma nee pexe am na da koy génne loolu nee waa ñu ngi koy wax fi ñu xam ko. baat bi sax pour ñu xam nga problème la nañ jàll ci biir. Euh, sëñ ñu yëgg ci biir waxtaanee li xew ci dëkk bi. maa ne la marabu soose tey yaramam dafa teel a tàng mu ngi jóge ci saal bi dugg ci néegu biiram nag ngir waxtaanee xam-xam nee na ma tey li ma énervé dinaa la ko leeral mais mbokk yi nekk ci jigéen ñi am na ci jigéen ñi am sacré yàlla sacré yàlla dafa am secret bu ci nekk danañ ko waxtaanee tey danañ waxtaanee kàggu mag ña sëñ soye bu li ma lay njëkk laaj mooy tey nit ki nga xamante ni day dund ci àddunaam ñu koy liggéey mu bëgg ka koy liggéey ñëw ba ci moom jéggulu ko wala sax ku ko liggéeyati faatu wala sa tànk néew wala sa bopp néew wala sa loxo néew yi yan secret moo mën a affronter li nga xamante ni moom mooy korte liggéeyu bon yi doomu aadama yi di sànniwaatee. beneen yoon wax nga solo. ndax guddi yi Sénégal yàqu na àdduna yàqu na ñëpp ngi liggéeyante ci bureau yi ci kër yi ci grand place yi ci école yi dégg nga chaque jour nga gis ñu ne la kii brave la woon dafa jàngkat la woon jékki-jékki na bu duggee école day daanu wala bu duggee école day nelaw dégg nga wala kii bu ñëwee ci bureau am day day dëkk ci nelaw rek wala bu jë jëmee ñëw ci place day mel ni dafay am yu muy gis di dal ci ay miir war dugg ci porte bi ñu koy woon ay porte fekk du porte bu fa jàllee mbëkk miir mi mhm. ba dootul mën di dem. ci place yi nga gis ku tëj place am. saa bu fa jubee mel dafa am lu lu lu koy dàq wala nangam. yooyu yëpp ay liggéey la. te dara war lu ko lu nit ñi seen ñàkk imaan gi ñooy am. ci alal gi nga xam ne wërsëg gi nga xam ne yàlla leen koy jox suñu borom subhaanahu wa taala ñu ñàkk gëm ne képp koo xam ne am na alal rek moo xam ñu bokk seen alal seen wërsëg moom la suñu borom jël jox ko keneen te fekk du loolu. Mhm. yàlla moo yor wërsëg yi di di ko jox jaamam bu ko sopp jaam bu def sabab pour am ci wërsëg pour am ci wërsëgu xéwal yàlla yii yàlla dana la jox am na ci ñoo xam ne nag defin lu bon ak seen ndey ñàkk say say bu baax yaa ngi dégg moo war lu leen dal rek loolu leen ko teg dégg nga lu leen dal rek loolu leen ko teg dégg nga ak melaw doomu aadama yi ak juddu doomu aadama yi yooyu yëpp dafa mën a xam yaa ngi dégg nga xam ne kon bu ko defee doomu aadama bi war na saa su nekk lépp lu mën a fonk ci karange na ko def lépp lu koy aar ci cat ci làmmiñ ci liggéey bu bon ci corte ci ngelaw seytaane ci rab bu ko dugg doomu aadama war na ko fexe def parce que jamono jii yàqu na feebar yu bëri mu ngi am nit di ko am di dem hôpital di ko faj te du feebaru naturel seytaane la moo ci laxus ñu sant la kort boo xam ne mooy def jeexit boobu sama teer tànk yooyu may faral di wax nga xam ne mu ngi nii man ma amee ko nii gis ma ko nii dama tàggal ko moom teer tànk yi ku ko am kaaraange la duñ la mën a kort mhm. ngelaw du la mën a dugg mhm. yaa ngi dégg seytaan du la jàpp duñ la liggéey mu jàpp la dégg nga wax ji sama xob bi ku ne xam ne xob bi ba ma ko dalee génne ba ma koy génne fi dama ko bàyyi ak ay léegi ñuy wax ay xoob ak nangam nangam man lu may def lu ne wala di ko wane lu ne mhm. mbiru mag la gis nga xoob bi cat làmmiñ làmmiñ ñu liggéey la moo xam liggéey bu ñu def ci armeer mhm. yaa ngi dégg wala liggéey bu ñu def ci sele beñoon wala liggéey bu ñu daaj ci guy mhm. ku la ko def mu dellu ci kawam cat ak làmmiñ bu lay topp da ngay gis xob bi ci moom day ñuul kuk mhm. day ñuul kuk comme nii dégg nga nga dem raxasi belend la ku ko am noppalu kaso yomb na ci nit ñi nit ñi ñu ngi leen di dugal kaso te defuñ dara yaa ngi dégg tooñuñ waxuñ dara nit ñee leen xirtal ci ay yëf yaa ngi dégg wala sànni ay yëf parce que sëriñ am da ngay am am na secret yoo xam ne tey jii bu ma bëggoon dugal alaaj dégg wala kenn ku mën a doon kaso am na nu may def loo xam ne dama koy sotti ci pax boo xam ne kañ dafay génne weer boobu duñ ko génn mukk te waaju dugul kaso lii nii ndomb lañ koy liggéeyee lii buum la buñ tànkee buñ tànkee bëy moom ngay wut mm-hmm. ñu am luñ liggéey def ko ndomb mm-hmm. ndomb boobu ku ko takk doo dugg kaso mm-hmm. coow loo am bu dul coowul jinne bu mu mën a doon boo ko takkee coow li fay coow lu mu rëy boo ko takkee mu fay moo beneen bi may def ci gën boobu ci gën lañ koy raxase def ci juróom-ñaari puso nga sangu ko boo paree jël puso yi def ko ci paxu duus ndax puso yi ku mu jam rek dafay def robaale yaa ngi dégg loolu coow xataa ku ray nit sax ñaanal ma ko yàlla nit pour wan la ci fay coow bu ko defee mu fay lii ku ma ko jox nga def ko ndomb carabinier du la jàpp mukk police du la jàpp mukk du la daq mukk ba jàpp la ma ambulant yi maani yi xam ne ñoo nekk ci bitim réew nga xam ne chaque jour ñu ngi dàqante carabinier ngir lu ñu am pour yóbbu seen kër yi ku ma ko jox giñ naa si Sëñ Tuubaa police du am coow yoon du la jàpp du la yóbbu coow doo ko am mu rëy mukk ba bañ indi la ci jafe-jafe mukk ci àdduna du am dégg uh-huh. ci karaan euh, sëriñ bi euh, mankaañe bëgg naa nga leeral ko askan wi ak jigéen tamit nan lay amee mankaañe waaw mankaan yi lu ko aajoo la jamono yi ndax cage ji dañoo bari ci dëkk bi daanaka dëkk bi réew mi ñëpp ay cagalañ uh-huh. doomi njaaro yi nga xam ne nangu ñoo dem takk jabar dégg nga jigéen ñi nanguñ dem uti jëkkër uh-huh. fookat yi tàmm nañoo foo ba xam ne boo leen joxee jëkkër sa arrangé wu leen liñ bëgg mooy dëkk ci di foo xam ne àdduna saxul tey arab bi dana inal jadidayni isa mastawla yaaw ala jadidin adna yaaw lil bila koo xam ne guddeeg bëccëg dafay ñëw sa kaw di dem rek leer na leen bis dana ñëw nga màgget kon loolu lu mat a bàyyi xel dee it dana ñëw na nga juddoo noonu ngay xëy abale te war ngaa dajale say xasanaat say yu baax say yu rafet ngir am loo yóbbal ëllëg waaye day taluñ ko am na ñoo ne seen nafsiya bii seen bakkan bii lañ jël teg ko si seen si ci àdduna bi rek jàpp ne loolooy wéy di wéy dégg nga. waaw am na ci jigéen ñoo xam ne soxlawuñ góor ordinaire. borom jëkkër la ñuy léegi looloo ci dëkk bi. jigéen ñoo xam ne soxlawuñ ku amul ku célibataire. ku ñuy wër góor gu am jabar nga. jigéen ñoo góor ñoo xam ne mot na gi fi la yem sëñ bi. góor ñoo xam ne man de man sama meen waaye keroog dañoo toog mu ne ma mu ne ma est-ce que xam nga ne sëñ bi léegi góor ñu ci bari fu mu toll nii. ma ne ko ah mu ne ma doxaantuñ jigéen ñi amagul jëkkër ma ne ko nga ni mu ne ma xam nga bu njëkk da ngaan sax ñu naan ku tas la ñuy la ñuy doxaan mu ne ma léegi borom jabar yi ma ko ndax lan loolu mu ne ma àdduna bu yàqu rek waa léegi fu réew mi jëm ak loolu fu réew mi jëm ak loolu li may conseil góor ñi daal mooy képp koo xam ne mm-hmm. ragal nga ci sa jabar nangam du question ragal sax waaye jamono moo wóorutul jamono wóorutul tubaab bi dane mieux vaut prévenir que guérir fexeel defar fagaru sa bopp ba yenn yi buy ñëw nga koy xam mankaani góor bu ma la ko joxee nga def ko sa sàkkara seeg sa jawar ku seeg moom mu kalaate maanaam keneen ku tiim sa jabar am problème mu kalaate laa wax waaw ah. ah, ku ko tiim yoom bu dee bu dee bu dee bu dee jigéen bu ko bu ko raxasoo sa jëkkër fu mu dem du fa mën dara kon jigéen da koy def ju góor. voilà man vice versa la. jigéen bu ko am. Mhm. raxasoo ko sa yëg sa jëkkër fu mu dem du fu mën mii mi laa wax. waaw pour mu leer. Mhm. am na ci it boo xam ne da koy takk sa bunt sa buntu wala nga suul ko bu fekkee da nga am jabar buntu néegam. waaw dafa am lu ñuy turam la ñuy jël bind ko ci nga suul ko foofu. Mhm. gi nga kooku bu jéggee loolu du mooy yàlla ba keroog muy dee. du la mooy mukk ba keroog muy dee. loolu daal xam naa ko ci ma ci mankaani waaw. sëñ Sohaibou euh, ki bëgg wërsëg dégg naa yéen soose yi am na xeetu xob yu ngeen di jël di ko fete di ko jaxase ak alxuraan loolu ku ko sangoo wërsëg da koy yomb alal daf koy yomb xaalis daf koy yomb. lii nii 99 xob la. maanaam xob maanaam maanaam juróom-ñaari garab la yoo xam ne garab bu ci nekk dañ ci jël 99 xob. ñu suul ko ci taalu jàngu. bu ma tey semaine ñu doo koo génnee. fekk xob bu ci ne dafa am laay buñ ci bind. dëbb ko kaas ko. weer ko di ko com boole ko saafara di ko joxe sunguf pour lu ubbi. wërsëg wërsëg lii boo ko sangoo li weer woowu. da nga ci xaalis loo mos a téye. sunguf si sunguf si. du ci sori képp koo xam ne da tëju. ndax am na ci ñoo xam ne sobe gu bëri. waaw moo leen tax a tëju. am na ci ñoo xam ne. heure yi ñuy sangu moo leen tax a tëju dégg nga am na ci ñoo xam ne toog ak ñu war a toogal yaa ngi dégg ñoo xam ne dañoo dañoo tilima tilima tilim ba ku ku leen ku leen jege umu moo leen ko def yaa ngi dégg am ñoo xam ne lekk togg ku setu moo leen ko yóbbee yaa ngi dégg am ñoo xam ne ñàkk jaamu yàlla moo leen yóbbee ak tëju benn waaye dafa ma ma sax ne ma ñaanal ma sama mbir yëpp dafa tëju ma ne ko yow doo julli rawatina tàkkusaan sëñ bi baraana nit a ngi liggéey ci place ñu xëy dàq ko fekk sàggane tàkkusaan ko waral is xam nga loolu ñu bëri xamuñ ko baraana nit ngi yootu lu mu bëgg mu jege ko lool mu war koo mën a jot fekk sàggane looloo ko waral karnaar yi karnaar xob yu njëkk yi dama koy ubbee nit saafara la bu ànd ak lii ñu tijji ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan ba pare sànni ko géej loo tëju woon lu nekkoon ci kalkal sa yaram dañ day dañ ba seet ko noobu soose gi téyel ko ku góor ki du ko rëcc foo jaar moom. loolu am na ci boo xam ne sama benn góor laa ko jëlee Seydi yàlla yàlla yokk leeram te àjjana di këram jigéen ju ko raxasoo seeg jëkkëram def ci tuuti xorom jëkkëram dootu ko muñ mukk jigéen joo xam ne dafa nekk jëkkëram loxo bi dagg maanaam du joxe ba pare wane ginnaaw ko masalan nga amoon sa jëkkër am sa jëkkër mu la daan jox mm-hmm. jékki-jékki joxatu la. am na loo xam ne dama la koy jox nga def ko ci fer wala sa bopp. téere bopp wala téere fer nga koy def. force moo woon la ginnaaw moo woon la kanam. am na ci boo xam ne dañ koy suul. xeer ngay jël def ci biir jëlaat téere bi teg ci kawam jël beneen xeer tegaat ci diggante bi. Mm-hmm. ut soow suukar ko moom saf. sotti ko ci kawam. boo ko sottee wax turam ne diw. bëgg naa ñu jiboon ni cer ak déggoo ni asamaan ak suuf. Uh-huh. déggoo ne guddi ak weer ko tëf suul ko toog fa juróom kooku loo ko mu ne waaw mooy góor yi nga xam ne seen jawe dañ ba bu ñu téye nopp du ñëngu loolu lañ koy def ci nopp <laughs> te yëpp noo cosaanu soose la uhuh. luñ ko def nit mukk mu rëcc mën nekk dégg naa yi tamit yàlla noonu leen mayee ci wàllum ñi soxla papier ñi bëgg ay visa ak yooyu moom bu ma neexee sañ cee kañu moom ndax kañu ndamu sant yàlla ci la bokk uhuh. du puukare loo xam ne yàlla da dalaa may dala cee may xusuus ya saa boo koy def xam ne yàlla la ko sañ nga cee kañu dama ne kayitu séjour kayitu kuy lijjanti visa dégg nga kuy di permis kayit yooyu bu mu ci mën a doon wala kayitu administration mm-hmm. bu mu ci mën a doon boo ñëwee buñ jiboowee ci prix mm-hmm. ma jox la ci loo xam ne timbre lay àndal juróom-ñaari timbre nga lakk ko boole ko moom sangoo ko doo ko sangoo mukk te amoo kayit man maa la wax lii lii doo ko sangoo mukk te amoo kayit laa bu fekkee lu jëm ci wàllu kayit koo xam ne da ngaa nekk ci place ragal ku la fa jële giñ naa siñ to billaahi wallaahi taalaay buñ jokkoo doo fa jógee xanaa yow lay sopp waaye li ma lay jox bu ma la ko joxee nga sangoo mu jaar seeram nga tibb ci suuf place bi boole boo amul suuf nga ramassé fa ab këyit bu bokk ci place bi boo xam ne ci place bi nga ko jëlee rek lakk mu doon doom ko moom sangoo ko mu li jaar ci seeram nga jël ci tuuti ci ndox moom tokkal ko ci place bi place boobu doo fa jug mukk boo bëggee yóotu place su mhm. ba koo jël boo ñëwee man naa la ko jox dégg ma de. sa mbokk mi am na combat de Ama Baldé. waaw man de affaire combat moom. dama noon ci yàgg dama ci génn dootuma ci waxati parce que yii fi caaxaan yooyu bañ na ko ba dama ko seetaanul sax far. ah seetaanul bëri. ah mukk fañ xam nañ fa jëm ñoo xam de nga wax ji. Ama Baldé Modou Lo nga ne. ma tuddal ñooñ la wax man taluma loolu li ma tal mooy jàngal Alxuraan jàng xasaayit sikar tur yàlla képp koo xam ne am nga aajo boo xam ne daal ñëw nga fii. muy mbër ak ku mën a doon daanaka ñaan nga dem sa yoon waaye sama yoon newul ci lool sacré yàlla ban secret moo ci nekk ci jigéen gu am sacré yàlla. damay wax ne jigéen bépp jigéen boo xam ne danga amee sàkkar yàlla kaw. bu kaw bi. bu wax day leer. Uh-huh. boo duggee ci sëy na nga ñaanul sa sëy bi lu la ci dëj lu ko mooy rek da nga sëy sëyaat man maa la merci jigéen ju am sàkkar kaw tas daf ko yomb ci sëy. boo duggee ci sëy rek na nga ci ñaanu yàlla lu la ci dëj ci ci sëy bi. Uh-huh. lu ko mooy rek sëy mën naa yàqu mën ngaa sëy ñaari yoon ba ñett ba ñeent. dégg ji. waaw baraana ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dugg ci sëy di ci génn ko génnaat ñu jàpp ne rab la wala yu mel noonu fekk jigéen yooyu loolu daf leen yomb. Mhm. seen nature ci la bokk. dégg nga ji. am na ci ñoo xam ne immaa rab la nag mhm. ndax rab ni muy feeñoo nit dafa doy war. rab dana tere nit sëy dana tere nit am doom mhm. dana tere nit mën a nekk ak nit ñi dana tere nit mën a toog ci place di liggéey place bu mu dem di fa liggéey balaa yàgg moom fa coow coow lay doon mu bàyyi. wala ay nit gis ko fa rek duñ ko estimer. duñ ko jublu kum jublu doo ko jublu. xuloo yomb ko lool xol bi di tàng di ko yomb lool. dégg nga wax ji mënta nekk kenn. foo ko fekk it day faral di tuuf li lu bari jigéen boo ko gis mu koy def xamal ne dafa amee rab. dégg nga jigéen joo xam ne foo ko fekk di tuf li kooku rab dafa nekk ci moom dégg nga jigéen joo xam day sawlal rab dafa nekk ci moom dëgg la jigéen guy waaw buy saw. Mhm. dafay nekk ci nelaw boo ko souvent boo ko laajee ci ay nelaw la koy fekk mais buy nekk ci nelaw dafa mel ku nekk ci duus si saw. su saw bi di ñëw rek buy tiit ci nelaw bu day gis ne saw na saw na boppam. Oh. loolu rab la dégg walla wala kuy gis ay nag yu am bëjjën yu ñuul. waaw dina dàq. kooku am nga coro rab. rab nag daf ci am rabu aada. Mhm. mooy ñoo xam ne seeni maam dañoo amoon tuur daan ko nàndal muy topp ci sët yi loolu mënees koo dindi mënees naa neexalante ak moom nag mhm. xam yan sarax ak yan gàllaaj mhm. nga mën a laal ba du la yàqal mhm. nga koy def li ci mel ni alxames jigéen boo xam ne rab da koy faral di sonal wala góor buy faral di génnee soow juróom-ñaari soow par alxames na génne tey rab du ko yàqal booku rab du ko yàqal bu doon mer da gis day wàññeeku dégg nga bu fekkee nag koo xam ne dafa teew am doom rab di ko yàqal saa su nekk bu ëmbee bu jàppee ëmb rek da gis dafay def accident ci gént wala am xeex bu mu def ba deret génn mhm. fu ci gisee deret rek bu xëyee day gis affaire bi day tuur mhm. dégg nga wàññi loolu jigéen boobu am na loo bu ñu la ko joxee boole ko juróom-ñaari ndoxu teen yu bokkul wala juróom-ñaari ndox yu bokkut maanaam ndoxu zamzam ndoxu maawul werde ndoxu seyaan dégg nga ndox robinet xeetu ndox yooyu ba mu juróom-ñaar wala juróom-ñaari teen yu bokkul buñ la ko joxee nga naan ko juróom-ñaari fan da ngay tàggal ko loolu dégg mhm. yooyu daal mën nañ ko joxe ci misaal ci rab waaw euh, bu fekkee ne galaaju sëy gi gi nga xamante ne mooy tax booy sëy da ngay diire doo gaaw a daanu boobu bëgg naa nga ñëw ci sunguf si waaw sunguf si moom du ci jaar ci tur gaa yi xam nañ ko benn kilifa na ma kilifa nga nit ñi dañ laa xam te la naw mu ne na yenn kàddu yoo xam ne boo ko génnee ci mel nii Euh, ñenn ñi ñu nañu suñu son bi lu ko dal nii wala nangam. bii ku ko naan. waaw mu ngoog ku ko naan def noonu ne eh? <laughs> ah dégg nga ma gannaaw gaa yi xam nañ ko rek te sama classe gi ñu ngi ñëw di ko jënd. jeex na doy na sëkk mu ne ma mu ne ma rek yow boo ko yëkkatee gaa yi xam nañ man la. dañuy xam ne arrivage bi ñëwaat na. jeex na. ñu bàyyi la kon nga ak askan wi lay suivre ci MPROD waa waaw xanaa di leen gërëm. dina leen sant di ñaan yàlla Sénégal jàmm ñaanal waa ji nañ ko bàyyi ndax gis nga dégg ñun lu ñuy xëy di ko gis giñ naa si sëñ Tuubaa kenn xam nu mu toll buñ ko doon wax fii chaque jour police wàcc sama kër gi te fekk du dara luñ gis la yàlla wan ñu ko ñu war ko mën a wax am na ci loo xam ne bu la ko yàlla wane nga gis ko danga nga ko war a wax melul mooy dëgg man fu mu toll nii bu ma la waxee na bu ma sañee wax na la gis naa juróomi kilifa yoo xam ne ci nguur gi lañ ne yaa ngi dégg élection présidentielle yi buy jàll dañ am tawtu jismu wala ñu am problème ak yoon tey ji bu ma tuddoon seen tur yoon wooma waaye mbir yi day toll foo xam du ko jar da koy mën a wax boo ko mënul nga noppi li may waxaat encore une fois daal mooy Ousmane Sonko nañ ko bàyyi mooy dëgg nañ bàyyi doomi jàmbur ji nañ bàyyi jàmbur nañ ko bàyyi loolu may wax ji wasalaam jërëjëf acco dégg waxtaan wu am solo wi Serigne Soye bu maane la bu soose waxtaan tey mu nekkoon waxtaan wu bëri euh, njariñ mu doon ko jëmale ci ki nga xamante ni moom mooy Ousmane ko waaye doon joxe ay tegtal ci liy defar dunduk doomu aadama ndax nit ki ak dundam njariñ la nit ki ak dundam lépp xéewal la ci kaw bu ko xamee